ton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi entretien spécial la ñu c'est yéene sekk ki nga xamante madame Aminata Badiane donc présidente du euh, comité Miss euh, Sénégal Nous avons mbégte bu baax a beaucoup fas yéene bokk ak moom mu waxtaan occasion wu euh, concours final bu Miss Sénégal 2024 bi le 12 juillet dans le Grand Théâtre madame Aminata maa ngi lay dalal waaw maa ngi lay nuyu man tamit di la sant di la gërëm ci invitation bi di nuyu staff kewlo yëpp. alors ginnaaw ba ma la dalalee madame euh, occasion bi ñu fi euh, boole maag yow xam nañ ko muy. Euh, concours bi nga xam ne moo war a am fële te final bi war a doon ca Grand Théâtre le 12 juillet ci Miss mm-hmm. Sénégal bëggoon nañu xam balaa ñoo xuus ci organisation bi ak ni muy demee lan mooy historique gu Miss Sénégal d'abord waaw Miss Sénégal euh, événement la boo xam ni dafa exister depuis 1960 patrimoine la euh, Moïse moo ko yore woon man boog ci Moïse laa ko jëlee mais avant Moïse sûrement amoon na keneen ku ko yore woon. Mm-hmm. Moïse jaay ma ko ci 2015 laa ko jël maa ngi woon Europe foofu laa nekkoon doon fa liggéey. Mm-hmm. Italie yàgg fa lool nekkoon ci secteur bi secteur Miss mode beauté. Mm-hmm. donc ci laa ñibbisee nag gis Moïse Moïse jaay ma ko bi mu gisee sama background mu ne ah kii kat c'est la bonne personne si le ma ko jaayee. Mhm. donc ma jël ko boobaak léegi di ci liggéey vraiment euh, di di daw. Mhm. di ko organiser ndax ku ne xam na ni produit boo xamante ni ni dafa ñàkkoon tuuti euh, kiyam quoi. Mhm. oraam amoon na ay difficulté ay jamono ba mu toog sax lu yàgg organiser wul après si laa ko jëlee nag relancer ko. vraiment ñu koy organiser di ko organiser donc mi Sénégal moom. Euh, patrimoine la te dañ ko soxla ndax importance bi événement boobu am buñ ko doon wax fii ba suba duñu pare. c'était ñu ci <laughs> Sénégal déjà vitrine la pour vendre la destination Sénégal mais Sénégal dina valoriser la culture sénégalaise. Mm-hmm. c'est la promotion culturelle. fu ñu mënti dem ci àdduna bi parce que dañuy participer Miss Monde di participer Miss Univers ak euh, Miss Cosmo Miss Elite carte mm-hmm. internasional. la ñu am mm-hmm. te fuñ ci dem rek dinañ wane taaru Sénégal aaday Sénégal couleur yi Sénégal mm-hmm. ak suñu consommé local aussi suñu made in Sénégal ndax bu ñuy dem Miss yi dinañ leen accompagner te ay styliste ñoo leen di accompagner manam ci coleen ñoo leen di jox lu sol lu tak taq bu boobaa sénégalais ko defar létt ñuy létt wala coiffure ñuy coiffer sénégalais yi ñoo ko réaliser mhm. dal yi ñuy sol sénégalais yi ñoo réaliser donc à la fin ci kaw ba ci souf kooku c'est industrie de la mode mhm. waaw donc lolo tax mu am solo ba paré ci walu social aussi ñun ak wa LISCA ñu ngi euh, commencer ben collaboration bo xamni dañ leen accompagner ci lepp luy sensibilisation pour lutter contre les cancers beneen bi aussi mooy euh, Miss bi toujours day am projet social am boo xam ne da porter pour dem Miss Monde à l'international mm-hmm. euh, Miss Sénégal ambassadrice la day dem dans les rencontres internationales mm-hmm. euh, fille aussi askan bi lu mu soxla pour mu jàllaleel ko ci message mm-hmm. Miss Sénégal pare pour jàllale ko ce sont des porteuses de voix lañ koy wax donc ñooñu xam nga am nañ solo donc événement boobu institutionnel la. te hmm. dëkk boo dem am na événement Miss. donc Sénégal nag <laughs> du rester en rade. am na solo nga doon ñiy wone xar kanamu Sénégal wala boog di jëmmal Sénégal fii ci Sénégal hmm. naka noonu fële ca bitim réew nga ne am na quatre comités international yoo xamante ne ba tey yaa ngi fay euh, jaay Sénégal nga koy def depuis quinze lan moo la ci gën a marqué. waaw li ma ci gën a mooy. Euh, légui Miss Univers par exemple depuis 1987 Sénégal bokatul won dañ ko éliminer mhm. par peut-être non respect des chartes nenañ dal Sénégal bokatul donc ma top ci di daw bobu légui di ki di góorgóorlu ba yalla def ñu accepter ma ren donc ren Sénégal dina dellu Miss Univers loolu nak muy ndam parce que Miss Univers mo gëna mag ci concours yi Miss Monde ñaar yoyu ñom ñoo nek les plus haut niveau. Mhm donc tay mën nañ ni comme football bi ni muy def di dem participer coupe du monde football mën nañ ni aussi beauté sénégalaise dina participer coupe du monde beauté. d'accord waaw kon solo solo. alors buñ né beauté suñu xel day dem ci éducation té ñi di participer ci Miss bi yëpp daanaka ay euh, jigéen lañ ban contribution ngeen di apporter le jigéen yi nga xamné ne participer ci Miss euh, Sénégal rawatina Miss Monde et tout ça ci sen éducation. waaw éducation bi. ñu ngi waxtaan ak ñoom toujours. Mhm. di dalal seen xel am équipe yoo xamante ni ay professionnels yoo xam ne ñoo leen di former en de développement personnel. aussi créé nañ également cette année le comité éthique du du comité Miss Sénégal mhm. boo xam ni ay femmes yoo xam ni ñu ñëpp respecté la ci Sénégal ku mel ni honorable Hélène Tine ci la bokk. Mhm. ak Fawzo dem héros mondial du tourisme. ak ñeneen ak ñeneen. donc mu nekk loolu am solo parce que. dañu soxla ay mag yoo xamante ni dinañ waxtaan ak ñoom di leen mm-hmm. delloo si bu weesoo dinañ leen di faral di octroyer des bourses d'études mm-hmm. yoo xamante ni dina noppal seen parent yi mm-hmm. pendant cinquant seen parent yi dootuñu fayati comité bi moo leen di jox bourse boo xam ne moom la ñuy bénéficier ak des voyages ak ay actions yu y yoo mhm. donc je pense que éducation la d'accord alors euh, su weesoo participation éducation bi est-ce que am un impact ci la walum ko participation économique du euh, euh, Sénégal di def ci biir participation économique du Sénégal di def ci c'est énorme ndax mi Sénégal ci région bu nekk am nañ fa délégué boo xam ni mooy organiser. Mhm. imaginez bu organiser dëkk bi day yëngu. activité échange économique lañ koy wax. Mhm. parce que hôtel ba dana am ñu fay dal fa. restaurant yi dinañu lekk. Mhm. Euh, ticket yi bu ko jaayee xaalis boobu xëy na dina ci génn mu am feneen fu mu dem. Euh, nit ñi aussi ça va permettre aussi ñu am ay activités culturelles ci dans les régions donc kooku échange économique la sans compter ñi ñëw di sétane di joggé bitim réew diko ko assister. Mhm. day attirer aussi tourisme. d'accord donc loolu am solo la ci ci Miss Sénégal. ban inspiration ngay jox xalé yi nga xamante ne nyolo ñoo la wolu ba ñëw bokku ci li nga xamné modi affaireu Miss beeg sélection yi ak yoyu waaw Miss yi nga xam ak xalé yi nga xam ne ñoo ma wóolu ba ñëw bokku ci. Mhm. dama leen di conseiller rek ñu gëna gëm seen bopp. Mhm. rester naturel. xam ni femme sénégalaise est forte. Mhm. amul dara lu ko jomm. Mhm. fu nit agsi rek femme sénégalaise mun na fa agsi. Mhm. ñu gën a góorgóorlu gën a fonk seen étude aussi parce que dañu war a jàng. ndax dañu war a am benn background bi ndax ñoom dootuñu n'importe qui. ay star lañu ay euh, exemplarité lañu donc tey war nañu fu ñu taxaw représenter le Sénégal dignement. di leen ñaax rek ñu gën a góorgóorlu gën a jàppale seen i waajur ndax nit ku nekk ay waajur nga am et puis euh, rendre disponible pour le service du Sénégal. d'accord dama dégg sa biir wax nga ne star ñu gis ni euh, la plupart de la jeunesse su ma ko mënee waxee noonu maanaam ci jigéen ñi bu ñu demee ba sentir seen bopp ci côté star wala gagné nañu miss wala bokk nañ ci sélection dañuy am benn offre yi bu nekk ci ñoom est-ce que doon star signifie nekk offre yi wala am na beneen définition bu dul offre yi non non dooni star du offre parce que star nit la comme yeneen nit yi ah. il faut rester simple humble mën a gérer sa succès loolu c'est très important parce que am na xale yoo xam ni malheureusement mënuñu gérer succès et succès du dara parce que nombal tànk la rek bu la yàlla jox warul changer dara ci sa éducation ci sa comportement ci sa éthique parce que fii Sénégal dafa am lu ñu gëm dañu war a respecter toujours suñu ay valeur moo tax toujours fii yi ma leen di wax dee leen xool li nga xamante ni nii mooy suñu valeur ngeen di ko doxalee di ko di ko respecter bu leen àdduna jaral ba ngeen roy parce que ñun duñu ay tubaab ñun li ñu am daf ñu doy suñu yëpp rafet suñu teint rafet na d'ailleurs moo tax may bañ ku xeesal mm-hmm. critères yi ku xeesal duma la jël du coup dañu gën a gëm suñu bopp daal waaw di gën valoriser suñu produits locaux mm. li am di lettu <laughs> waaw di di mm. lettu di bàyyi suñu karaw mm. di wane daal vraiment suñu beauté naturelle am na solo alors parlant tout à l'heure yaa koy wax sa biir wax critères ngeen di euh, Miss Sénégal ak sélection bi nu muy demee waaw sélection bi euh, il faut nga nekk sénégalaise de nationalité taille 1 m 72 le minimum 36 38 de taille euh, avoir un bac le minimum. Mhm. background bi am solo. Mhm. la langue anglais aussi bu mënee nek mo gën parce que international beta mhm. Lolu moy mooy ba paré teint naturel du am piercing du am ay tatou yooyu yep dañ koy tere. waaw naturel dal naturel waaw voilà nga leen di delloo aussi sen ay culture. waaw waaw ñuy wat comme ni mag ya daan doxalee. waaw di sol lu yiw. di wax lu yiw di jëfe lu yiw ba paré ñu teg leen aussi ci yoonu julit ak yoonu jup ak yoonu jubal comme niñ koy waxé jub jubal jubal ah yaa ngi ci slogan bi c'est important. <laughs> alors ñu wax leneen jëm ci euh, gis nañ ni euh, da nga ko doon organiser à la merveille ñu euh, dem ba benn moment Covid ñëw sûrement stagné say activité mm-hmm. naka nga ko d'undé waaw Covid bi bu mu ñëwee xaw nañu pénaliser parce que à na moment bo xamni dañu téré won même déplacement entre région des régions mhm. donc mënuñu won sax organiser ci région yi mhm. du coup dañu copté won un format digital parce que légui aduna bi day développer mhm. euh, amna événement yo xamni c'est digitalisé donc loolu lañu def organiser ko à la 2S def ko un plateau télé retenir trois filles par région mais euh, xawon na am les difficulté à dire vrai parce que Covid bi mu ñëwee euh, ni nga doon liggéeyee dafay wàññeeku doo mën a rassembler ay nit doo mën a jege nit yi donc c'était vraiment compliqué donc impacté na vraiment ci suñu liggéey bi Covid bi ñëwee. Mhm. mais bon yàlla def na léegi Covid teggi nañ ko bon amatu fi bon peut-être peu de cas je sais pas. Mhm mais amatu fi en fait jeexna na. quoi ngi fi de dafa alors au delà de ça aussi ñu gis nga de waton au delà de Covid bi en 2020 ñu gis ni affaire yi bureau. na mbiru yoon ba yalla def. Euh, yoon jox leen euh, dëgg mais terewul woon da nga def stand by lan moo waraloon waaw ku ne xam na ni àdduna du toujours lay neex. Mhm. et ay ndog-ndog. Mhm. yàlla moo koy teg jaam bi. Mhm. bi mu ñu ko tegee ñu nangu ko lool xam ni lu waroon a ñëw la si ñun. bon après nag bi loolu amee justice saytu. parce que justice moom xool na lépp bi mu xoolee lépp classé sans suite la def dossier bi. ne ah comité bi kat dañ ko tooñ. kon nag loolu ñu koy sante yàlla. Euh, di ko gërëmee ñëpp. waaw ndax euh, c'est pas évident metti woon na mais man dama ni comme man ma victime bi. Mhm. sama personne n'est pas importance n'est pas importante. Mhm. li ma ñor mooy Sénégal ak développer Sénégal bokk ci daam yi nga xamante ni ñoom ñooy les actrices de développement. loolu moo ma ñor jàppale xale yi jàppale jigéen yi. Mhm. xool lu ñu soxla ma di ci dox. man je suis là pour le Sénégal pour rendre service mon pays. alors nous devons ci loolu ba est ma la parce que au delà de ça aussi j'espère que vous avez ay règlement intérieur defaat ngeen sélectionné di sélectionner ak critères je pense que peut être dina strict lool ba nga xamante ne képp kuy jugati pour def euh, Miss Sénégal dina am leneen lu bokkul ak li ñu ci daan tabbee ñu par rapport à li fi jot waaw même bien avant dañ daan def ay charte yoo xam ne nii c'est bien ficelé mhm. miss yi dañ koy liir ba mu doy leen ñu signé ko te charte yooyu li ñuy tere yëpp mi ngi ci biir mhm. euh, ren nag innovation yi ñu def pour gën a encore jël les mesures mooy dañu am benn comité étique bu ñu organiser mhm. muy euh, éthique bi nga xam ni euh, honorable Hélène Tine moom moo ko dirigé. Mm-hmm. ak Faozo ak yeneen i nit yu si bokk yoo xamante ne ni vraiment dëkk bi ku ne ràññee nañ leen ci affaire yelleefu jigéen. Mm-hmm. ñooñu nag ñëwuñu fi rek pour défendre xale yi mais dañu ñëw pour defendre comité bi mais également ak xale yi ak miss yi parce que dañu bëgg ku ci nekk nga am say droit ñu respecter say droit euh, respecter li ñu warloo. que ça soit comité que ça soit miss. Mhm. donc lolu amna solo d'ailleurs ñi ngi ci hôtel bi Iris ñi ngi Iris euh, Sendou. Mhm. ba comité éthique bi sax le loger ak ñom ci 4 étoiles vraiment ñu ngi leen di dans de très bonnes conditions. Mhm. lolu dafa am solo té avocat comité Miss Sénégal aussi mi ngi ñëw tay la à Paris. Pam ma may jokku manque koy de passage xam mi avion bi. maa koy aussi man. <laughs> donc <laughs> à ah, tey la wara aksi ñeu mhm. rejoindre feulé hôtel ba mhm. pour waxtaan ak euh, Misi donc vraiment lolu am solo bu baax matuwaay yëpp ñu ngi koy jël te mhm. police aussi bind nañ fa un courrier qui xamni demander demandé à ce que sécurité bi vraiment euh, mat je pense que dinañ ko def parce que dañ ñu mësa accompagner ci sécurité bi ngi leen di remercier de passage gendarmerie également ak euh, ñëpp rek ñu yoré karangé dëkk bi yépp

seeni programme da ngay gis tey par exemple dem nañ def visite LISCA dem nañ seeti la présidente après dañ dem Maison Rose de bëgg nañ dem euh, visiter euh, camp pénal prison des femmes des femmes euh, bu ñu nekkee ci villa bi dinañ togg parce que dañuy def ku nekk togg sa plat régional ñu xool ba xam miis yi. ba xam du rafet rek quoi parce que. rafet aussi 14 régions yëpp. 14 régions yëpp ci nekk day togg. ku ci nekk day togg. rafet aussi il faut que mu ànd ak ay jonge. c'est au-delà de rafet waaw parce que ñun nag nous sommes des femmes sénégalaises yoo xam ni da nga war a mën a togg dafa bokk suñu ay valeurs. Mhm. donc euh, dinañ def aussi ay shooting. dinañu euh, def aussi miss bu nekk dina jëmbat benn arbre parce que cette année thème bi autonomisation la mhm. dans l'autonomisation les ngi ci parce que la protection de l'environnement mi ngi ci mhm. agriculture mi ngi ci euh, élevage mi ngi ci pêche ngi ci lepp ngi ci donc activité yoy dañ ko insérer ba nga xamni ni yi dañuy dem dinañu jëmbat garab mhm. miis bu ne di nga jëmbat ben garab miis bu ne di nga dem séti femmes yi nga xamni ñom ñoo nekk ci tool yi di bay mais yi dinañ dem aussi euh, rencontrer moy vieux vert quoi amna ben euh, ben pas boo xamante ne ci loolu lay yëngu tout ce qui est environnement. Mhm. dina leen rencontrer tay dina waxtaan ak ñoom ñu jéem a jël ay matuwaay sur tout ce qui est protection de l'environnement ndax loolu dafa am solo. Mhm. donc euh, nekkatul rek miss défilé mais miss yi dañu ñëw. pour jàppale nit ñi pour que lépp luy loo xamante dina jëmale kanam Sénégal. Mhm. Nous mën ci ànd ak d'accord ba ministère de la famille et des solidarités Solidarité aussi mi ngi mhm. euh, euh, protection. Mhm. excuse mhm. euh, autonomisation des femmes. ministère de la culture aussi mi ngi ñi accompagner bu événement donc remercier parce que implication gouvernement bi dafa solo ndax xam nga Sénégal bu mag la. Mhm. ndax hein, comité bi di <laughs> alors que. que vous avez besoin d'appui quand même. waaw soxla appui institutionnel. Mhm. te maa ngi di remercier appui ñi vraiment seen taxawaay di leen euh, sant di Nous gërëm. en dolli wala. sommes <laughs> appui ah appui <laughs> ah appui ñu ngi xaar sax. Hmm. ñun jotaguñu appui Hein. d'accord D'accord, d' dina baax mais impliqué wu nañu institutionnellement. c'est une contribution te loolu lu am solo la. Hmm. pour que nous yéen kat ay jigéen ngeen parce que madame la ministre de la euh, famille et des solidarités dafa wax lu am solo. Hmm. ay jigéen ngeen yoo xam ni dañ leen a encadrer nous devons assister leen. ngeen war a ci pour que li ñuy jotali jigéen yi Sénégal yëpp ngeen ànd ceeg ñun liggéey ci. Hmm. kon nag bi mu xamee ni ñun ñi ngi dimbali jigéen ñi nga xam ne dañoo am feebar feebaru cancer. mooy hmm. waa LISCA yi nga xamante ni ñoom ñoo yor lépp luy prévention ak euh, dépis dépistage ak hmm. yooyu yëpp. moom mu rafetlu ko lool ne ñu moom kat dina taxaw dinañu jàppale dinañu accompagner. loolu moom lu am solo la donc ñu ngi ko ciy remercier de passage. laata ñoo ñëw ci cappaandaw bi maanaam laajte ni organisation bi tëddee pour euh, vendredi 12 juillet ci euh, final bi dama lay laaj euh, ban impact ngeen am ci contribution Miss Monde. waaw impact buñ ci am. Mhm. Miss Monde par rapport ak participation beeg yooyu. Mhm. Mhm. participation bi yombul. parce que licence yi c'est très coûteux ah licence yi su ma la waxoon lu muy jar nga ni ma eh. ñaata la. <laughs> c'est beaucoup d'argent mhm. c'est des millions mais c'est des millions mhm. te am y des des des africains, dëkk de ba bokkuñu pour licence bi kon nag dañuy Sénégal on a eu ci de ci pays mhm te Miss Monde benen dimension la. mais ban politique lañu wara def parce que tout à l'heure bu dégg nga ni amna ay pays africains yu bëgg bok mais mënu bok parce que amuñu ay moyens financiers. légui ban politique lañu mëna def pour que Miss Monde buñu waxé rek xar kanamu Afrique gën ci am jëm en fait. waaw léegi je pense que Miss Monde a na plus présence des pays africains. ñu mm-hmm. bëri ñi ngi commencé bokk mais ba léegi des na ñëpp amuñu moyen d'accord mais question de moyens la. parce que il faut que nga am tamit licence bi budé jar ay millions buñ la ko laajee te xam nga doo ko jënd. donc lool mo waral que pays yëpp mënuñu bok lan moy sa secret ba ñu démé ba Miss Monde bi passé Sénégal dem ba final. waaw parce que Fatou Lo mo représenté woon le Sénégal té mm-hmm. ku ne gis na Fatou ni mel mm-hmm. <laughs> kooku c'est la beauté naturelle. Mm-hmm elle a enseigné à allah et puis elle a assuré. bi mu demee aussi marquer le coup parce que vraiment euh, yóbbu suñu ay euh, modèle suñu ay euh, création xam nga jaay nañu daal jaay nañu. Mhm. donc jaay na vraiment la destination Sénégal. Mhm. ak produit yi nga xamante ne c'est le made in Sénégal. Mhm. donc loolu moo vraiment nit ñëpp ràññee nañ ko foofu. te am na solo. am solo parlons de l'événement peut-être sax fa la ñuy euh, jeexalee bu war am le 12 juillet bi muy final bi. lan nga koy préparer ak lan ngay teg ci loxo ñi nga xam ne war nañu ñëw teewlu ko wala bëgg nañu ñëw pour euh, teewlu ko. waaw le 12 juillet defe naa ni sénégalais yëpp ñu ngi koy xaar te man aussi damay wax ni maa ngi invité ñëpp di woo artiste di woo euh, képp kuy sénégalais sax parce que su ma limee rek juum euh, grand théâtre nag la fay am moom surprise la parce que mënuma toog di ko wax instant dañ ñuy ñamal tuuti nag laata ngaa dem parce que loolu moo ñu mën a incité à ce que ñun ñi ñu mën a teew ah en tout cas gan yi moom fi mu ne nii <laughs> aéroport ba xumb na parce que gan yëpp ngi wacc d'accord pays CEDEAO yi ñoom ñëpp dinañ teew. mais est-ce que yaakaar nga dinañ xaj Grand Théâtre damay ragal ñu bañ fa xaj. six esplanade bi la wala ci biir ki bi. Euh, ci biir salle bi lañ koy ah, defee. té salle bi 2000 personnes la. est-ce que dinañ fa xaj aussi. parce que ñu nit dañoo bëgg dem bëgg jëmmal suñu suñu suñu suñu bés. <laughs> non damay ragal ngeen bañ fa xaj ndax fi mu ne nii nit ñaa ngi buuxante pour am billet billet yi sax euh, presque jeex na. ah bon waaw nit ñi ñi ngi buuxante hein déjà non du yomb de parce que xalé yi rafet nañ mi les nañu te ku ci nek qui ci gis rek gagné. Mm. xam nga mom du yomb. <laughs> am nañu esprit ont ni machallah da am nañ moral le moral est bon. le moral est bon. Mm-hmm. donc nous ngi invité autorité yépp di invité Sénégal yépp mm-hmm. ngeen ñëw Miss Sénégal ngeen ñëw assister. Mm-hmm. vraiment dinañ ci ndax parce que c'est un patrimoine commun sénégalais yépp ko ñàkkul ni am na say doom ñu ñu la mat doom am na si am na si ñoo xamante ne mat na mën nga leen tata boo doon am benn message boo xamante ne nii moom nga leen di lancer ñoom miss yi lan nga leen di wax ak ñi nga xamante ne ñu ngi bëgg a euh, inspiré wu pour bokk ci euh, concours boobu. waaw euh, lu mel ni miss yi dama leen di encourager. Mhm. parce que jongante yombul. ndax ku nekk boo sañoon gagné. et que mu nekk rek jeu genre jeu ba ku ci gagné wul it Euh, nekkul ni dafa démérité parce que ñoom ñëpp a rafet. Mhm. li ñu war a am yëpp am nañ ko. Mhm. donc mais comme compétition la il faut ñu tànn donc maa ngi leen di ñaan rek ñu vraiment dalal seen xel et puis ñu gën a góorgóorlu gëm seen bopp comme li ma doon wax sànq euh, ñun ñi ngi fi comité baa ngi derrière eux di leen jàppale di accompagner même bu ñu sax mhm. parce que du du du final bi rek mais après final aussi am na suivi mhm. donc ku ci amul liggéey dinañu xool noo mën a amee liggéey ku ci amul formation dinañu xool noo mën a amee formation mhm. ak tamit activité sociale yi ñuy mëne ñoom ñëpp la quatorze régions yëpp la mhm. donc euh, di leen rek ñaax ñu gën a góorgóorlu gën a gëm seen bopp ma jaajëfal la madame Aminata Badiane yan kàddu ngay tëjee waaw maa ngi sant di gërëm uh, stafu Kéwoulo yëpp di nuyu Babacar Kéwoulo mm-hmm. di sama xarit di sama frère mm-hmm. et di leen le 12 juillet vendredi. au mhm. Grand Théâtre. j'espère que a une place. bien sûr en fexe ba une am place. d'accord alors content euh, à ci merci beaucoup. merci beaucoup alors euh, entretien spécial à amaloon avec madame Aminata Badiane mon présidente du comité Miss Sénégal te ñu war a def euh, li nga xam ne moo di finale bi le 12 juillet bii ñu Grand Théâtre di leen wax ne rek ngeen ñëw le suñu miss yi ndax événement bi Sénégal nous ko moom te ñoo

silola iye kamben kabo dum munya bolodi